daane bi murid yi yéen soppe yi xaside yi noo ngi leen di nuyu di leen jottali ay kàddu yu jóge ci sëñ Hamzatu yu gàtt ndax xam ngeen ne ni ñu ko baaxoo la defee bu sëñ Abdul Ahad mi masaa ñëw ànd ak sëñ Fadilu Rakka sëñ Abdul Xaadir bi nga xam ne moo gën a doon gone ci doom sëñ Soxna bi ànd ak Abdul Ahad mi taaw sëñ Cheikh say ak rakam ñoom ñëpp dañu fi teew teewaayu sëñ Cheikh jëmmal ko fi bu ñu masa at ci cottite yi itam damay wax ci turu kër sëñ Soxna bu waxtaan yi ci xaside yi mu yaatu waaye ren nag waxuma damay wax la li tax ma jël kàddu gi rek mooy présenté leen ku ngeen xam muy Cheikh Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir ak jottali kàddu yi kàddu yi mos nañu am sa fi wax ko bi ci jiitu mooy Serigne Bassirou mii ci ni ngeen ko xamee yéen murid yi ku bëgg Serigne Touba. yoonu maamam ñoom la ba tax ay magam Cheikh Mouhamadul Amin yàlla ko yàlla dolli leer ak Cheikh Sidil Muxtaar nii ne yàlla fa yàlla yàggal ñu faboon ko dénk ko seen kàddu ak seen baat mu seen lépp te noonee ñu ko doyloo woon mu doyee mu yaatal li ñu ko dénk ci kër yëpp ba ku ne ci sa fépp fu yoonu muy teew it bu fa yëkkatee kàddu yoon bi siggi sama digg moom nag bu lu ñuy wax ñëpp ko xamandoo mu sëñ Abdou Khadre jébbal ko suñu soxna bi bu muy gone lu ne ci moom sëñ soxna bi moo ko ci def waaye ma gën a yéem doomi Sëriñ Tuubaa ci ni mu doon doxee moom ndax dafa mel ne cofeel ci sëñ bi ci neex gi sëñ bi neexul ay bët man a gis lu ñëwagul ndax moom mii ma xamee sëriñ Sohaybu di ko wax waxtaani sëriñ Tuubaa boobu xamagul luy lool te day wéetal moom mu toll ci fukki at ak ñeent fukki at ak juróom mu di bi di ko nett li mel ne mag lay waxal ba ñu xam sëriñ Sohaybu di jaaxal lii lu mu ci jublu xam na ne dana dem ba yor yoon wi mu di ko ko song di ko ko sàpp ngir bu dikkee jamono ji dikkee mu war wax kon moom xamoon na kan mooy sëñ Basiiru jiit bari netti naa leen ko dana ci jaaraat maam moom sëñ sëriñ Saalihu mas nañu xelil kafe ci loxo bu tedd ba di waxtaan ak ñun ci xaside yi bokk benn xissa bu neex waaye du ma ko ci jiitu naa ko bàyyee mu wax ko mooy natt waaye dafa am sëriñ bu mu andi ak it lu ma sëriñ Xamsatu wax sëriñ bi nag laay tëjee. sëriñ Xamsatu dafa maa yóbbante ci bokkam yi nga xam ne ñoom la bokkal ak jublu te jublu gi di genn muy xaside yi nee na mënu leen a fay ndax moom jàpp na ne ku xëy ci xaside yi di ci yëngu rek moom nga ci xëy waaye li mu man mooy boole leen ak ki xam ne ñemewul bor dafa am pay mu Cheikhul Xadim mu fay leen bi ci topp mooy mi ngi leen di yëgal ne fii ñu toog tey yéenu fee yéen du fee jàng xasida ma gëm ne lu ab jullit di am ca arafa ci bisu arafa ab murit mën na ko am tey jii ci bis bii ci barke ana lu ma wax ko sëriñ bi moo wax ne salli salaatan lii tukawwinul muna lii taquudu arafatin wa mina te jataay bu mel ne arafa nag maa ngi door gis si jataay bi